li ñuy tudde al mawt muy dee mbir la moo xam ne jëlul ñu di ko ragal a waxtaane ndax lépp lu bokk ci sunu mbir rek wala ñu di ko ca yaakaara boole dee moo ci gën a wér ne ci la bokk ndax yi ci def yépp mën naa bañ a nekk yu bari yaa koy sumb ci ay xew-xew naan xëy na bis bu ma amee ngénte wala bis bu ma amee céet wala bis bu ma amee nangam bay sax di préparer loola te yooyu yëpp wóorul sax ba xam lu mën a am la am déet waaye teewul nga di ko waajal ndaw li di ko waajal di ko jàngal di ko jàngal métier ngir ne lan ngir bis bu màggee di waajal ak màggam bis bu doonee mag avenir te avenir boobu li dee garanti nit kooku dana ci jaar avenir boobu garanti wu ni nit ki dana egg ci loolu ñu koy waajal maanaam kenn ku nekk sa doom moom mën ngaa wax ne dana dee waaye nga mën a waat ne dana nekk mag ba li nga koy préparé lépp mu jot ci loolu moom mënoo koo waat da ko koo yaakaar rek mais mënoo ko confirmer ndax borom bi moo ne wa minkum man yutawaffa min qablu am na ci yéen ñuy faatu bala ñoo nekk mag wali tabluqu ajalan musamma wa laallakum taaqiluun nee na kenn ku nekk ci yéen dama ko wutal fu muy yem dama ko wutal fu muy yem koo xam ne bu fa eggee rek moo xam aas bu mu mën a toll daf fiy jóge moo tax aas bu nekk rek nit dana ci jóge kon nag nga gis ne kon ni muy xëre ci waajal avenir boobu nit ki di sonn ci njabootam lool léeg-léeg di fay ci am njàngam lu bare bare bare bari moo xam ne lan ca mooy waajal avenir am rek ne bis bu màggee bokk ci ñu tekki bokk ci kilifa yi réew mi wala bokk ci ñu koy doxal te waajalul néeg ne dama koy préparer bis bu dee mën a bokk ci ñi mucc ci safara bu ëllëgee yaakaar naa ne programme boobu muy préparer ko préparer boo xam ne bu dee mën a bokk ci ñi mucc ci safara moo gën a mat a jiital moo gën a mat a jox yitte lool itam ci beneen bi ci def te borom bi ne yaa ayuha alladina amanu xoo anfusakum boobu sax la borom bi digle ngeen programme ko wa ahlikum naara waxul fenn ne préparé sommi leen ci préparé seenu njaboot ci buñ màggee mën a am dépense yàlla wax ko fenn ndax yar bi mu digle ñu war ko koo yar moom buñ ko yaree yar boobu bu màggee dana liggéey lu ko mën a may dépense waaye métier moo ko mën a préparé ak xam-xam boo ko mën a jàngal te yëruñu ko yëru diine bu màggee itam benn du jot ca lañ ko doon waajal wala bu ca jotee itam du ko jaarale ci yoon wa nga xam ne mooy doon njariñam doon njariñu société ba muy dund kon nag ñu boole ko ci suñu programme bu baax a baax a baax yu bari sax buñ leen tuddee baatu dee dañ la nett li woo ko te yàlla ci boppam moo la ko nett li bi mu la daataan nett li dund sax dee la la njëkk tuddal xalaqal mawta wal xayaat li yabluwakum ayyukum axsanu amala yàlla dafa bind dee ak dund ngir nattu leen ba xam kan ci yéen moo gën a rafet ay jëf kon adduna bi dañ koy ñëw rek pour test pour ay épreuve yu ñu yàlla jox yoo xam ne résultat ba ñi ngi koy xamee ji ci kanamam bu ëllëgee kon lu mat di waxtaane la